Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. dama koy tànkaleen ñaar ñi euh, Madiambal Diagne ak ki nga xamante ne mooy ministre de la justice Malick Sall ñoom ñaar ñëpp dinaa leen ko dinaa dinaa dinaa wax si ñoom ci loo xam ne xëy na ñoom war nañu ko fàttaliku bu baax a baax léegi bi ci njëkk mooy Madiambal Diagne il faut mu wax ñu il faut mu il faut mu bàyyi bu Sénégal tollee fii. mu génn ak ñàkk jomam boppam bu ngande di sonal sénégalais di fenal ay doomu jàmbur il faut mu bàyyi di fenal doomu jàmbur yi ma jambal jaañ il faut nga arrêté di fenal doomu jàmbur yi il faut nga arrêté di jéem a créer lu dul dëgg encore une fois ma jambal jaañ tuuti nga puj taal senegal képp koo xamante ne da nga jaay sa làmmiñ képp koo xamante ne danga jaay sa xalima wallaahi tuuti nga pour taal Sénégal billaahi tuuti ngeen pour yóbbu Sénégal ci guddi goo xamante ne bët setagul Sénégal ki ko yóbbu guddi gi bët setagul mooy Macky Sall tey moom ngeen jaay seen xalima yéen tey yow ak koy àndal ak képp ku la ku la gëm da ngeen a jaay seen bopp jaay ngeen seen xalima jaay ngeen seen làmmiñ jaay ngeen seen jëmm jaay ngeen seen xol jaay ngeen seen dugub amatu leen benn benn benn personalité léegi nag du ñu seetaan mukk ngeen di influencer. opinion nationale bi wala internationale bi di di wa di di fenal nit ñi di wax ne que Sonko dafa am ay euh, dafa am nu ñu koy waxee tey dafa am ay rebelle yu jógee woon yu jógee Casamance ñëw dakaar manifeste bay bay dem bay demande ñu dàqlu koo xamante ne nii xëy na Casamance la euh, bokk ci état bi te bi coow lu jógee waxu ci mais mais est-ce que est-ce que yéen ñii ñi ngi ñi ngi ñi ngi xalaat quoi man dañ dem est-ce que ñi ngi xalaat mënuñu ko ngir yàlla nañu partager live bi il faut mu leer il faut que ñu wax. il faut ñu ñëpp ñu wax ñii ñi ngi bëgg taal Sénégal ci lu ñàkk fayda ñii ñi ngi bëgg taal Sénégal ngir seeni poos ñii ñi ngi bëgg taal Sénégal ngir seen xalima ngir seen seen ëllëg ak seen ëllëgu doom parce que bu réew mi tàkkee du leen fi fekk duñu mus a d'accord mukk duñu mus a nangu mukk ngeen utiliser presse bi ngeen utiliser seen ay journaux ngeen utiliser seen ay site internet bëgg taal Sénégal ci lu ñàkk fayda bu pare am ci seen xaalis tëdd ci tëdd ci loolu duñu ko nangu Madiambal Diagne mooy nit ko amul benn crédibilité nit ko amul benn njëriñ nit ko amul benn kersa nit boo xamante ni fenal nit ki am alal jaral na ko lu nekk te am ay doom yoo ay doom yu mag ay doom muskalaf tey ngay taxaw di fen ba say moroomu doom ñooy taxaw si kaw ci internet bi di la di la demande yi di wax rek nga arrêté sa fen yi ça suffit il faut que mu jeex lii nii il faut mu jeex il faut ngeen ba ñu yóbbu ci euh, guerre contre ennemi Sénégal loolu fi am Mame Abdoul Aziz daf ci def ay jéego yu mat sëkk te loolu des koy sàmm di ko wéy di sàmm dañ koy xëy di sàmm ba keroog ñuy dee munoo leen jaxase xeet yi munoo leen a jaxase askan bi lii ngeen di def muy nekk ay manipulation siiw na fës na nit ñi xam nañu ko dootuñu ay xale yu ngeen di nax génération bi fi nekkoon nga xamante ne ni conscient wuñu woon wala nanguñu woon a xam tey li xew ci seen réew wala luñ ciy doxee ñoo ñu tey dañoo nërmeelu mais fii amatu leen ku ngeen fi mën a manipuler pour am li ngeen bëgg wallahi du am. billahi du am du ngeen manipuler benn sénégalais tey ci wàllum ethnie ti kii joolaa la wala bambara la ay ma jambal jaay est-ce nit la mais naka la nit mën a waxee kàddu yu mel nii continuer di dund ci jàmm ñu bàyyi ko ci këram mu leer na ko ku ko ci waxoon keneen ku farul ak ñoom dootoo ko defati képp ku ko ci waxoon faral ñoom dootoo ko defati tey ñu seetaan ma jambal jaañ mu taxaw fen fenam yu rëy yi fen bu mën a taal askan ji nga gis nga ji nga nga ji nga moo mën a taal réew ci lu gaaw a gaaw a gaaw fen moo mën a taal réew ci lu mu gaaw a gaaw a gaaw te ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñaan peuple sénégalais bi lii ciy wax waruñu ko bàyyi waruñu ko bàyyi noonu parce que dafay yomb waruñu ko bàyyi noonu mu wax lii mu wax nii rek après ñu bàyyi ko noonu non non non non non chaque histoire bu jug senegal mu lenn coow la ma Madiambal Diagne dina ci indi def ay articles yoo xamante ni ku ko laajoon ku ko tegoon ci kanamu yoon tey jii nii ñu teg ko ay ati kaso te dara du ko ci fekk. dara du ko ci fekk dafa war a arrêté yi muy def da ngeen war a arrêté yi ngeen di def ñi te bëgg a taal Sénégal mooy ñi nga xamante ni nii tey ñi ngi dem Fuuta maatam tey di fa wootee ay di fa woote ay wàllum xeet di wax ne ko xeet bii ñoo bëgg a rey xeet bii loolu amul Guinée li fa am gis nañ ko li am Mali gis nañ ko tey Guinéen ñi ngi jooy ba léegi seen ñàkk seen ñàkk seen ñàkk seen ñàkk jot ci nguur pël Fuuta ñi ngi jooy seen ñàkk jot ci nguur lu ko lu ko waral wàllum ethnie te te loolu dafa ñaaw loolu dafa nekk loo xamante ni lu ñaawa ñaawa ñaaw ci askan la munoo leen a dim munoo leen a dimbali nit ñi ngeen bàyyi nit ñi ngeen di jaxasi ci wàllum xeet munoo leen a dimbali nit ñi ngeen bàyyi nit ñi ngeen xam ne da nga leen di jéem a boole ñun Sénégal lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu xam ci wàllum xeet. ka booloo kalante saafonte mbokkante demalante dikkalante loolu lañu ñu xam te kenn mënuñu si jële wallahi kenn mënu si jële Sénégalais yi tey Macky Sall moom yi di mbubboo ay pël laaka pël la pay ñi ko gën a taxaw di xeex ay pël lañ ndax dégg nga ñi ko taxaw gën a di ko xeexal tey ay séeréer lañ wala ay njaago kon il faut arrêter bàyyi leen yi ngeen di def yii du dox yii amul sens yii du ngeen ci fayeeku dara lu dul tar réew mi daw bu leen ñu indi fii parce que fii du suñu place Sénégal lii waroo leen ko fay lii yéen Madiambal Diagne sa ñàkku jom gi nga jëlee ko fi nga ko fi nga ko jëlee woon lillaahi wa rasuuli dama teg ko fa. bañ na ba sa journal kenn liiru ko kenn jënd ko parce que danga fen ba yàqu ku ànd ak yow fen na yàqu bàyyi leen Sénégal yi ngeen bëgg a dugal ci gudda bu leen muusa nangu ki leen wax ni que ay ñi demoon mais ki loolu ay fo ay caaxaan la wala lan la. yéen seen façon communication bi ngeen yore fan yi lan la lan la parce que amatu leen amatu leen benn argument ñemeetu leen dem ngeen ba ñeme woo leen woon dem ci benn débat tey nag ngeen am seen fitu rëy ak seeni i kàcc yu fort nga xamante ne da ngeen koy jël teg ko ci kaw ci kaw taabal ji fen fen woo xamante ne nii ku ko dégg xam ne kii day fen ci magum jëmm te bi cool yi di metti kenn gisu leen kenn déggu leen. mais tey nag ngeen bëgg a ñëw fii bëgg ñu utiliser ci ci ci ñàkk fayda yi non non non non dootul jàll te dinañ ko wax ba ñëpp dégguñu Madiambal Diagne dafa pare pour réew mi te mi ngi koy pare ak moom ak ñeneen ak ñeneen gis nga lii am te FRAPP bindoon ko ci ci ci ci ci jamono yu yàgg di wax ne ko France mi ngi pare benn attentat terroriste fii ci Sénégal bi ko waxee dañoo dem jàpp ji Guy Marius Sagna bi ko daaw bi ñu ko waxee dañoo dem jàpp ji Guy Marius direct. tey loolu moo nekk di am ay manipulateurs ñoo nekk tey ci réew mi tey di def loo xamante ni nii kenn ñemewu ko tudd te nag bu leen xalaat ni mën ngeen a jël suñu ruu gi bu leen xalaat ni mën ngeen ñu denc ba dootuñu woo wallaahi xalaatuñu loolu lépp ci dara lañ ci xalaatul teyle nañ suñu bakkan depuis ba ñu jugee duggee ci combat bi ne Sénégal la ñuy xeexal teyle nañ suñu bakkan depuis bi ñu duggee tey ci ci milieu milieu révolutionnaire jéem a dinji tink tinki senegal ci fi ñu ko tënk te loolu duñ ci dellu ginnaaw ma jëmbal jaan tuuti nga pour fen bu fenati ba tas senegal tuuti nga pour naafeq sa naafeq gi bëgg a tas senegal saa su fii dafa doy euh, bi ci topp mooy ministre Abdou Karim Sall ñun nawlawuma ko man nawlawuma ko moom moo fi demoon rëbës gaa yi dañuy génne ay vaaram moo fi demoon rëbës bi mu demee rëbës euh, ne ne Sambour la dugg waa Sambour Neuf di ko tàccu mu ne daa dugg Sambour Neuf waa Sambour di ko tàccu rëbës. gars yi il faut il faut ñu il faut ñu xoolaat gaa yi Abdou Karim kaso bi gën a metti ci àdduna bi jàppee leen ko kaso bu rëbës sambur bi gën a metti ci àdduna bi muy sambur neuf bu rëbës Abdou Karim Sall moo fi waxoon wax juree jooju ne dafa dugg sambur neuf gën dugg ñu koy tàccu kooku tey bu taxawee di fen yi nii bum leen bett bum leen bett. te loolu ba mu koy def ma nga ma ngay booba lay dóor a ñëw di visite dem na visiter rëbës billaahi wallaahi taalaahi ku weddi li may wax demal nga creuser nga dem xool ay ay ay ay ay ay passé Abdou Karim Sall bi mu demee rëbës billaahi mu génn dafa dugg waa Sambour Neuf di ko tàccu kooku moo fi waxoon wax juree jooju noonu tey moo fi génnaat di wax ne que di di di di woo nit ñi ci fitna ci wàllum xeet ci wàllum xeet billaahi du ngeen taal Sénégal ci wàllu xeet wallahi Sénégal buy tàkk du yéen a koy taal ci wàllum xeet parce que fexe ngeen ba lajji ngeen ci lépp Macky Sall dafa lajji ku mu àndal lajji ku ko gëm lajji ku ku ku xam ku xam Macky Sall sax da ngay léegi du ñun d' accord ñun d' accord ñu benn yoon d' accord ñu benn yoon pour ngeen taal réew mi ci waru xeet ji nga Sonko Sénégalais la comme Sénégalais yi. Casamance seen ci Sénégal la bokk comme ni Fuuta bokkee ci Sénégal comme ni tuubaa bokkee ci Sénégal comme ni feneen ak feneen bokkee ci Sénégal te noonu la ñuy wéyee nekk di ay sénégalais di ngeen gis ngeen seen yii ngeen di def seen yii ngeen di def du jàll. seet leen beneen côté ci wàllu terrorisme bi ñu xam ne waaw yéen ay terroriste ngeen. parce que gis nañ gis nañ gis nañ façon bi ngeen commencé utiliser pour pour mën a pour mën a jaxase sénégalais yi ñun gis nañ bu baax a baax dofuñu dina jàpp ñu bu ngeen foogee ni mën ngeen mën ngeen a nax ni sénégalais yi da ngeen ni fenn da ngeen ni wax lu leen neex gis nga ay magum jëm xëy soo ba ngoon xëy suub ba ngoon di fuut benn nit bu ñu koy sàkkal sàkkalee pexe loolu yàlla du ci ànd mukk bu leen nit ki ëppee bopp rek ngeen faatu bu leen nit ki ëppee bopp rek dootu leen ko du ngeen ko fekke moytu leen ci yi ngeen di def enrangé wul sénégalais yi enrangé wul Sénégal fii ngeen ñu fii ngeen bëgg woo sénégalais yi du ñu leen ci wuyu cim xeet ci wàllu xeet ci fenal nit ki ci wàllum terrorisme ci fenal nit ki ci wa ci wàllum ci ci wàllum ci wàllum boo xamante nii kenn xamul kenn ci ci wàllu viol ci loo xamante nii boo ko waxee xale bu tuuti sax mu ne la lii dafa dafa dafa tuuti ci samay bët pour ma mën ci juger ngeen ñëw di ci di di di bëgg ñu ci indi duñu ko nangu ma jambal jaañoo euh, Abdou Karim euh, waa ji ministre de la justice billaahi wallaahi taalaahi bu ngeen foogee ne mën ngeen taal Sénégal ci seen yu ñàkk fayda yi billaahi di ngeen déru seen loxo ci ëkk xalaatuñu ko xalaatuñu ko créé ngeen fi wax bu nekk créé ngeen fi wax bu nekk lii dafa ruslu tey lii dafa ruslu tey bu Sénégal tollee fii ci ay magum jëmm ay kilifa ñoo xamante ni jaamu yàlla tey jii la ñu waroon a gën a jege dem jege yàlla jege jàkka ji ba bañu séentu alal ba ñu séntu ku leen tagg bu ñu séntu ku leen xalab ba ñu séntu koo xamante ne nii dina leen naw wala ku leen wekk tey jii tey jii ñoom ñooy itam topp ci ginnaaw xale bu tuuti lu xale lu ma ne man yaakaar ñii li ñuy def sax Macky Sall yëgu ko fen yi nii fenal Macky Sall nii non Macky Sall sax santu leen ko quoi Macky Sall leen ko comme comme comme tey ni comme tey ni ñuy ni ñuy toppee naan Emmanuel Macron moo topp ci ginnaaw Macky Sall nan ko defal li defal lii mais am na yéen yoo xam ne bu ñu demee ba ci biir tamit ñun dañuy tooñ tax Emmanuel Macron parce que Emmanuel Macron ñëpp gis nañ ne oto bi muy dawal Macky Sall oto bi muy dawal mën na koo jënd ba quatre fois orke cortège euh, cortège euh, Emmanuel Macron mooy mooy quatre-vingt bu euh, Macky Sall est-ce que Macky Sall moo ne ko dawalal oto yooyu euh, euh, euh, Macron moo ne ko dawalal oto yu mel noonu non non Macky Sall Macron waxu ko dawalal oto bu seer Macron Macky Sall waxu ko jëlal sa orchestre ngay dal rangale trente oto di di di pour booy génn. kon ñun ñun ñun ñun au fond ñun dañuy tooñ sax français yi ñun au fond dañuy tooñ français yi nañu xoolaat bu baax quoi nañu xoolaat bu baax ñun ñun des fois dañuy tooñ français yi quoi parce que boo xoolee ba ci biir rek da ngay xam ni suñu njiit yi ñoo marionnette ñoo ñàkk jom. ñoo gëmul dara ñoo buggul dara ñoo bëggul dara ci seen réew ñoo amul ñoo amul benn benn benn fulla ak fayda pour mën a jëmmal wala pour mën a defar Sénégal quoi ci ci xol bu sedd ci xol bu set ci xol bu ci xol bu làpp ko tey jii du ñu d'accord mu ko tey ngeen seen njeexitalu nguur gi ngeen sacrifier ci Sénégal wala sacrifier ci dundu Sénégalais yi loolu mënul nekk. wallaay loolu mënul nekk te du nekk ñi ngeen bàyyi ñu nekk nekkaat ci ñu nekkaat am ngelaw lu fiix da ngeen leen a bàyyi ngir que upp dafa baax ci laax bu tàng dong ngeen def ko waaye du ñu mus a bàyyi pour pour pour dénoncer seen yu ñàkk fayda yi ngeen def seen ñàkk jom gii ngeen ngeen dëkkee wallaay du ñu jug ci di ko dénoncer seen ñàkk fulla gii ngeen nekkee wala seen ñàkk wala ñànki gi ngeen bëgg a dëkkee wallaay duñ ko bàyyi ngeen mu jàll. billaahi du ñu bàyyi mu jàll du ngeen ñu woo ci mukk terrain terrain terrorisme euh, terrorisme du ngeen ñu woo ci terrain xeet tukulóor joolaa bambara séeréer déedéet Madiambal Diagne sa texte bi boo tëddee boo tëddee nga ngegenaayoo sa loxo ndeyjoor wala sa càmmuñ war ngaa xool ne fenkat bu mag nga war ngaa xool ne li nga wax nii mën naa taal réew waaye du taal Sénégal de li nga ci jublu woon yow dong yaa ko xam texte bii li nga ci jublu woon yow dong yaa ko xam te bii du mu njëkk ci li ngay commencé di tasaare Sénégal Madiambal Diagne di essayer rek di jéem toujours du baax di jéem rek te du dem di jéem a di jéem a di jéem a di jéem a di jéem a yàq deru nit rek te du dem tey lii war na leen Ousmane sunk moo leen gën ñun Ousmane Sonko dañ koy sant gërëm ko tey moo ñu wan baadoolo yi nekk ci Sénégal yëpp dañ koy gërëm ndax moo ñu wan ñi nga xamante ni gëmuñu seen réew te duñ ko mës a gëm ñëpp Ousmane Sonko dañ koy gërëm ngir ko indi na façon combat boo xamante ne nii ba suñuy doom ñun dinañ ko mëne te incha allah dañ koy réussir fi toujours ñu gis ne da ngeen di jéem a da jéem tas Sénégal da ngeen jéem a tasaare sénégalais yi dégguma kenn ci yéen ku dem ci plateau télé yi ci plateau rajo yi ci site internet yi wax ci nervi yi nga xam ne ñooy continé ñoo continuer di topp nit ñi ñooy dóor nit ñi ñooy gaañ nit ñi ñooy ñooy ñooy ñooy agressé nit ñi dégguma kenn ci ñoom ku koy wax dégguma kenn ci ñoom ku ko wax tey nag Malick déggu Malick Sall taxaw ne wax ñi nga xamante ni ñooy rayaate ñi yor ngànnaay yi di rey ñi nga xamante ne nii maanaam quatorze personnes yi ñu limagum ci ne ñoo dee ñi leen rey mooy waa kër Ousmane Sonko kii ci kat mënul mel ni moom naaféq mënul mel ni kii workat mënul mel ni kii ba xam damay laaj ba xam ñi doon jug di manifester Ousmane Sonko lañu àndal déedéet ba xam waa kër Ousmane Sonko fu xaj est-ce que amoon nañu mbooloo mi toll ni li wàcc. fan yii paas ci ndakaaru dama naan déedéet amuñu mbooloo moom c'est le peuple sénégalais ñoo génn du ay lutteur mais ay ñi yor seen carte d'identité sénégalais ñoo sonn maar génn di manifester kon ci ba tey yéen a ñuy wan na yéen a ngi fen di continuer di fen duma mus a bàyyi baatu fen parce que fenkat da nga koy tiiñal ba mu sës parce que fenkat da nga koy topp ba mu sës yonte bi moo ne sa mbokk bu tooñee da nga koy dimbali bu buñ ko tooñee dañ koy dimbali mais ñii dañ leen dimbali pour ñu xam ne ñoom dañoo nekkuñu ci yoon bu baax nekkul fi ngeen nekk baaxul il faut ngeen jóge fa il faut ngeen bu bàyyi voie bi ngeen jël ngeen jël voie dëgg ngeen dox ci lii leen dese ci nguur lii leen dese lii leen dese rikkuwaay delloo leen delloo leen ñu lu ñu moom gumba ku ko saraxul bàyyi kook yatam Sénégal toll na ci guddi yoo xamante ni ku ko dimbali la xam mais gëm gëmul ko suuxal ñun ñi ngeen di woo ne ñun ñoo nekk ci kaw terrain bi pour suuxal Sénégal pour taal Sénégal ah ah ñun ñoo bëgg wallu Sénégal parce que ñi bëgg a taal Sénégal Sénégal daa ne ci seeni yoxo si nga bu Sénégal nekk loon seeni yoxo kenn du leen topp kenn du leen wax ak yéen waaye yéen a yor doole ji yéen a xaalis bi yéen a yor justice bi yéen a yor yi di leen fay lu leen neex ñu bind leen neexul ñu bind. tey yéen yéen a yéen a jéem a yéen yéen a yéen yéen a jéem a tey génnaat tey jàkkaarloo peuple boobu noonu jox leen privilège yooyu noonu jox leen alal jooju noonu jox leen doole jooju noonu tey wëlbatiku di leen ko dóor yéen ko xeexee c'est dur dafa metti dafa ñaaw tey mënuñu gëm benn nit bu yor xalimaam waroon a bind luy apaiser tey fii Sénégal toll waroon a bind tey loo xamante ni Sénégal yëpp mënoon nañ ci mënoon nañ ci jëriñu waroon na bind tey loo xamante ni ku ko déglu rek wala ku ko gis rek di nga xam ne lii nit ku responsable moo ko bind nit ku bëgg réew mi moo ko bind nit ku gëm senegal moo ko bind waaye déedéet dañuy gis ne nit koo xamante ni ni dafa jaay xalimaam dafa jaay ngorom dafa jaay li nga xamante ne mooy imaanam pour pour lan alal alal jarul yenn yi wallaahi alal jarul yenn yi ku ko weddi laajeen sa sekk bi nga xamante ne ñàkk ko dugalaat ci nguur ñàkk ko taxawaat taxoon taxa tey di raam ci ginnaaw xale bu ndaw ñàkk moo tax tey muy raam ci ginnaaw xale bu ndaw parce que alal jëm yoroon di ko pasar pasare du alalam baaxut te alal ju baaxut kenn mënu ca tëdd wallahi alal ju baaxul kenn mënu ci tedd te tey jii ni mënoo tey jii lépp bépp dërëm bu ngeen lekk ci ci loosu Sénégal ay te lewu leen mi ngi mel ni da ngeen tëral nit di ko daggate di ko lekk te loolu lu ñaaw bépp tuuma bu ngeen teg ci doomu aadama ba dugal ko kaso jàpp ba ba ba nekk ba foog ne yéen a ngi ci jàmm jàpp leen ne da ngeen a rey peuple le peuple sénégalais ngeen rey wala askanu lëmm ngeen jël tëj leen ci kaso bi. te lii ngeen di bëgg a fondé wala lii ngeen xamante ne nii ñun ñëpp comprendre nañ fi ngeen jëm bu ñëpp jëlee seeni loxo fas ko fas seeni croiser seeni bras di ngeen ci jëme senegal ci guuta goo xam ni wallaahi billaahi. wa taalaahi kenn du ci mucc bu terroriste amee Sénégal yéen yéen a ko yegg pare na ngeen jàpp président Ousmane Sonko wax na ko dinaa ko wax gis ngeen lépp lu fi claté wala lépp lu fi tàkk muy doon ab tàkk-tàkk jàppal ni du ay terroriste waaye ñoom seen ak seeni nervi ñoom ñoo ko def tey ñoom ñi capable jël ay nervi ànd ak ñoom ci mbedd bi jox leen ay yat jox leen ay fetal ma jox leen ay masque jox leen ay oto dem ba oto administration bi nga xamante ne ñun ñoo ko moom tey ñoom ñu koy dawal di ci def ay ngànnaay jàpp sénégalais yi leen duma kon ñooñu capable nañ def leneen ak leneen ak leneen ba pare jiiñ ko sénégalais yi jiiñ ko Ousmane Sonko wala jiiñ ko ñi ànd ak moom wala jiiñ ko révolutionnaire activiste yu ci mel ni ñun nga xamante ne nii ja julleeg jaamu yàlla liggéey ak jaamu yàlla dong lañu xam xamuñu rey nit xamuñu sàcc xamuñu wor xamuñu wax lu dul dëgg lépp lu ñu nar a wax wala lépp lu ma nar a wax mu leer ma lii xamuma ko wala wóoruma du ma ca mus a wax waaye ci sa cas bu mel nii du ma mus a bàyyi ñu ciy créé ñu ci ñu ci ñu ci ñu ciy dugal sama ay mbokk sénégalais sama ay frères sénégalais ñi xamante ne nii amuñu lu dul bëgg Sénégal bëgg réew mi ñu nar leen a sànq nar leen a toroxal du ñu mus a nag seetaanat yi ñuy ñuy jàpp benn lider politique. benn benn benn leader koo xamante ne xëy na Sénégal tey mën nañ ne élection yi bu doon doonoon sax deux mille trente cinq am na Sénégalais yu bëri ñu mel ne man am na njortu ne mën na nekk président de la république ñu nar ko toroxal wala xam-xamam bu dul tuñ ñu jëriñoo ko ci président de la république xam-xamam mën nañ ko jariñoo ci yeneen anam tey jii nii ñoom ñu bëgg ko toroxal waaye duñu mus a d'accord nag loolu jàllati. cey bu ñu Cheikh Cheikh Ahmadou Bamba tey am na keneen ku ko waxoon ci manifestation yi Cheikh Ahmadou bàmba bu doon jamono ji la ko tubaab ji soxla tubaab yi soxla woon wallaahi tubaab yi ñeneen keneen la ñuy wax waaye dootul Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Omar Foutiou Tall bu doon jamono yi nga xamante ne nii ñii ñu toll nii xawma kan waaye tubaab yi du ñu mën a jot ci moom wala wala sax ñu koy bunu xatal di ko def ci keneen ak keneen ak keneen. tey génération bii nii am naa ci ñoom kóolute goo xamante ni kenn mënu leen a am nañ ci ñoom kóolute goo xam ne kenn mënu leen a jaay kenn mënu leen a nax kenn mënu leen a def loolu nu deful wallaahi tey jii la ñu gis Sénégal mu tàbbi ci loxo ay sénégalais yu juddoo ci réew mi jàngee ci réew mi màggee ci réew mi réew mi tette leen toujours moo réew mi jàngal leen réew mi nàmpal leen réew mi tette leen ba réew mi toll fi mu toll tey réew mi toll fi mu toll ci wàllum wa wa wàllum wàllum ci fay maanaam ci ci ci ci jëm jëm suuf ci wàllu démocratie ci wàllu koom-koom ci wàllu économie lépp Sénégal jëm suuf te amuñu lenn lu ñuy def lu dul jël paaka teg ci put wala das baaka jox ña ko bëgg a ñi ko bëgg a def loolu muy nasaraan si wala ñi ànd ak ñoom xalaatuñ benn yoon xalaatuñ benn yoon pour gas senegal ci xaar gas Sénégal pour suul ko xalaatuñ benn yoon suñu bakkan suñu bakkan rek wala Sénégal Sénégal bu am jàmm suñu bakkan rek wala Sénégal bu nekk ci bu nekk ci bu nekk ci yoon wu jub yoon bu leer yoon wu gëm te njiit kenn du ko tànn ci doxin njiit kenn du ko tànn ci waxin waaye njiit kenn du ko tànn tamit ci jëmm waaye njiit dañ koy tàmm ci xol bu rafet mais Macky Sall boo ko xoolee rek ak képp ku mu àndal képp koo gis mu ngi toogal di ko wax rek kuy toogal wax ak Macky Sall di waxal Macky Sall doo gis ci moom lu dul xol bu lëndëm doo gis ci moom lu dul xol bu lëndëm xol bu xol bu lëndëm rek ñuy gis laay gis ci ñoom te ñii ñuy yeb ñii ñuy yebal ci plateau yi ñuy rajo yi ñuy wax ñoom buñ ne leen défendre leen Macky Sall ci lan la ñu mën a défendre Macky Sall tey ci lan la ci ci ban anam lañ mën a défendre Macky Sall man gàcce la sax gàcce tey yéen ñu ne leen défendre leen Macky Sall wallaahi seeni doom yéen seeni doom yéen ñi toog ci plateau yi doom ñi nga xamante ni nii buñ leen joxoon lu àdduna ak la ci biir ne leen défendre leen Macky Sall dinañ wax bu ñuy défendre Macky Sall ci ban cadre lañ koy defendre léegi c'est ça la question léegi ñoom lan kuy défendre Macky Sall da laajte ci lan lañ koy défendre koo xamante nii du lenn looy wàññi. bi mu nekkee ministre d'État bi mu nekkee bi mu nekkee président assemblée bi mu nekkee opposant ba bi mu nekkee président de la république lan la defal Sénégal loo xamante ni xëy na ñun war nañ ko mën a tey taggee ko ko bàkkee ko ko ne lii lu baax la lii jëf ju yiw la jëfi patriote la jëfi afi waxi patriotisme du lenn ku ko ko bàkkee dangaa naafiq billaahi ku ko amul ku ñu kuy war a taxaw tey di défendre Macky Sall tey sénégalais amul amul am warul nekk ki mu fay ak ki mu fayul parce que tey Sénégal moo nekk ci crise ay doomu Sénégal ñoo wàcc ay doomu Sénégal lañu ñu rey ab sénégalais bu ñu dénk suñu kaaraange bi kaaraange bitim réew ak biir réew mi ñu taxaw ne ay nit yuy manifester fare ci Pastef wala fare ci Ousmane Sonko ñooñu ñoo leen faat ñooñu ñoo leen faagagal te mu nekk ay feni neen te mu nekk ay ay ay ay loo xamante ni du dëgg te mus du mës a dëgg. bu ngeen tëddee guddi ngeen xalaat ni yéen wax ngeen loo xamante ne nii du deñ ci du deñ dootul denc histoire u Sénégal jëf ngeen jëf ju bon ju dul denc histoire u Sénégal ngeen jëf ju bon ju dul denc histoire u Sénégal dugg ngeen ci suñu xol ci lu gën a métti ci suñu xol te denc suñu xol faat ngeen suñu ay doom suñu ay frère suñu ay mag ci ci ci dul du loolu Sénégal doolu noppee di ko jooy te bu ngeen doon ay gor bu doon am na lu luy dund ci yéen lu luñ naan ngor luñ naan jomm luñ naan lu tey jii nii kenn ci yéen du des fii Sénégal kenn du fi des tey nag ngeen pare jël ay ay ay Aïssata Tall mu ñàkk jom mi nga xamante ni tekkiwul dara billaahi Aïssata Tall Sall tekkiwul dara billaahi du nitu dara barki alxuraan du nitu dara mu dem jàppale Ousmane Tounkara fële ci états di ko jiiñ wàllum terrorisme di ko jiiñ loo xamante ni yëgul tinul xamul ndax ab ëpp ak ko ndax koo xamante ni day éveiller conscience su sénégalais yi ndax nit la koo xamante ni nii comprendre na li xew te day gën a continuer di conscientiser sénégalais yi man Ousmane Tounkara bu ñëpp nu noppeen ci moom man waruma noppi ci moom Ousmane Tounkara man bu ñëpp noppee ci moom man waruma noppi ci moom te dinaa leen wax li tax sénégalais la boo xamante ni nii gëmul lu dul sénégalais gëmul lu dul Sénégal gëmul lu dul def social dimbali doomu aadama Ousmane Tounkara musuma gis man xamul sama papa xamul sama yaay Ousmane Tounkara toog naa ba benn guddi buñ ne tabaski des na ñetti xaw ma ñeenti fan ma gis appel bu et appel boo xamante ne appel WhatsApp la ma nanguwuma ko jën ma ma bàyyiwaat ba yeewu ma yónnee ko message laaj ko yow la kan mu tontu ma ne ma man la Ousmane Tounkara ma woo ko appel ñu waxtaan ma kuppe mu bind ma wax ma sa tur dëgg ak sa sant mu bind ko ko bi ma tëddee bi ma yeewoo fajar julli fajar laa gis ne yónnee na ma lu ëpp cent cent mille man ëpp ne ko euh, kan nga defal lii te nit koo xamante ne xaarul xaarul sax yow nga koy demandé nga koy laaj. nit ku mel noonu ñun waruñu koo seetaan ak pexe bu ñu ko war a sàkkal pexe bii ngeen nasoon ci Assane juuf bu indi ko fii tey senegal nas ngeen ko ci ci ci ci ki nga xamante ne mooy Ousmane Tounkara te yàlla bu leen yàlla seetaan yàlla bu mu réussir tey bu doon doole la doole dong mooy tax tey Ousmane Tounkara jóge fa mu ne jóge ca seen yoxo wallaahi deñ na waaye amuñu kàttan bu ñun waaye dañ koy dénk yàlla suñu borom ne ko yàlla bu seeni pexe jub yàlla bu seen ay pexe jub yàlla buñ li ngeen di nas yàlla bu mu am yàlla bu mu antu te képp ku koy fexel lu bon yàlla na këpp ci sa kaw yàlla rek lañ lay seedeel yàlla rek lañ koy seedal li ñuy wax ni yàlla kese lañ koy seedeel amuñu pour pour def lenn loo xamante ni dañ koy def ci saahir di def def jëf ju bon bu ñu ko def yàlla dong lañuy ñuy seedeel suñu kàddu tey wallaahi buñ ñu gisatul wala bu ñu déggatul buñ ñu xëyee ñu ne dee nañ wala bu ñu xëyee dootu gisatul ñu abat ñu xam ne nit ñu baax ñoo xam ne tey jii nii yi ñu xam ci Sénégal dinaa ci compter tey Ousmane Tounkara man nit ñu baax ñi ma mus a gis wala ñi ma mus a dégg tey dinaa ci konte Ousmane Tounkara tey bu ñu demee ba gisatuñu sama jëmm ji wala déggatuma suma jëmm ji moom dina fees dina wéy di fees ci sama xol wala dina wéy di fees ci sama xolu famille te dinañ wéy di ko soutenir te dinañ wéy di ko continuer di ko dimbali di ko dimbali moom nag du ci alal mais dinañ wéy di ko waxal di ko di ko di ŋàññi ci tuuma yi nu koy teg ne dara du ci dëgg te wallaahi billaahi wa taala mënoo leen a wax a wax a wax a wax ba suñu dee jot ñu dee te suñu dee jotu mënoo leen ñu faagaagal mukk munoo leen ñu nërmeel loolu mukk te yàlla namu ko munoo leen ñoo munoo leen ñoo toroxal mukk te yàlla àndu ci fii ngeen jëmee senegal ak fii ngeen jëmee Sénégalais yi yàlla bu seen pexe antu bépp fenkat bu ngeen recruter bépp workat bu ngeen recruter bépp raykatu nit bu ngeen recruter muy seen i nervi yi balaa yàgg yàlla nañu yàlla atte ak ñoom yéen bakkan yi fi tëdd mu leer ne seen coobare dong moo tax mu tëdd fi. seen i coobare dong moo tax tey bakkan yi tëdd tey deret ji tuuru seen i coobare dong tax tey deret deret ji tuuru fi te li am fii yëpp mu nekk ay caaxaan seen ay coobare dong moo tax yàlla nañu yàlla àtteeg yéen yàlla na yàlla yàlla na yàlla leeral suñu diggante ak yéen ci suñu doom yi tëdd tey ci suuf ci suñu frère yi tey tëdd ci suuf ci suñu rakk yi tey tëdd ci suuf nga xamante ne nii yëguñu tinuñu lekkuñu naanuñu tey ngeen am kap am ngeen am xol xolum kiñaan dal ci seen kaw ñu faatu tey ngeen tourné jiiñ leen ne ne ne ay nit ñoo xamante ni ñoo àndoon ak ñoom di manifester wala ñu àndoon ak Ousmane Sonko ñoo leen rey Malick sàll yow doo nit sax yow doo gor sax yow doo gor sax jom war ngeen a jomb tey xippi yeewu gis na yéen yéen a ngi liggéeyal Sénégal yéen a ngi taxaw di service Sénégal ci ban fan ci toroxal Sénégal rek ci toroxal sénégalais yi ci toroxal nit ñu baax ñi rek ci fenal nit ñi rek wallaahi barki alxuraan bu dee senegal sëriñ Touba liggéey na fi bu dee Seydi Hadji Malick liggéey na fi baañas ak bépp bépp walliw bu liggéey fii Sénégal yàlla nañu yàlla àtteeg yéen ak seeni pexe yi yàlla bu mu antu parce que bu àntoo ñi ciy loru duy doon yéen. mais ñi ci loru woon ñi nga xamante ni seen yoon nekku ci mooy mooy fukki nit ak ñe ñeent yi nga xamante ni jotagum nañoo tëdd ñoo ñeneen ñu yeneen fukki nit ak ñeent ciy loru moo tax ñaanuñu yàlla seen pexe yëpp antu ñaanuñu yàlla mukk pexe mi ngeen di nasal Ousmane Tounkara mu sotti te du mu sa sotti ñaanuñu benn yoon ngeen libéré ko parce que loolu du seen yitte loolu du seen loolu du lu ngeen namm li ngeen namm ci moom bu sottee mooy ko rëbës ngeen ko jëmee. tooguñu fii di demander benn libération nit parce que yéen mérité leen ñuy naan nañu libéré diw li ngeen mérité mooy ñu fuqat ñi nit ñi ci seeni loxo comme ni ñu ni Sénégalais yëpp jógee foqat ni Ousmane Sonko ci loxo justice bi nga xamante ni dafa jeng tey foofu lañu toll ak yéen tollatuñu fi ñu naan libéré libéré libéré non dañu sonn ci nañu wax ñu libéré ñëpp wax nañ tey dafa am ñoo xamante ne dañoo dem bay tuutal suñu sëriñ si nga xam ne lu mu gàtt gàtt amal na njariñ société bi dangeen dem ba seen i wax ngeen bëgg ko baax gën a baaxal ka suñu kilifa yi nga xamante ni fu réew mi du naree tàkk wala ñoom ñooy gis lu ñëwagul dañuy taxaw toujours di alerte di xàcc di wàññi di di di di di artu tey yéen ngi fexe toujours di nërmeelu seen i kàddu yéen a ngi taxaw toujours di leen daaneel ci seen ay kàddu te billaahi wallaahi wataalaahi du musa antu li ngeen nambu ci Sénégal ak sénégalais yi dumb sa antu amatu leen yéene ju baax ci Sénégal ñun xam nañ loolu amatu amatu leen yéene ju baax ci sénégalais yi parce que ñëg ngeen li jot a génn wan ne leen ne ku ci waxati troisième bala ngaa yegg ci mandat dinañ dagg sa làmmiñ looloo leen naqari tey ngeen tey pousser sénégalais yi ci ci ci wàllum xeet ci wàllum terrorisme ci lu Sénégal musul dund lu Sénégal musul yëkk commencé woon ngeen ko fi yëkkati ñu artu ngeen ba Macky Sall musul wax ak sénégalais ci respect lu dul keroog bi mu jommee musul wax ak Séné musul jox cër sénégalais musul jox cër kilifa diine musul jox cër kilifa politique wala kilifa aada waaye keroog ba mu jàqee ba mu sonnee ba mu tiitee taxaw na ni war nañu moom ku tiit la ku jàq la ku sonn la ñu nangul ko ko tamit. mu ànd ak ay fenkat ñoo xamante ne dañ koo fen di koy fen rek fenkat yi toppoon wa toppoon euh, toppoon ki nga xamante ne mooy mooy mooy mooy mooy Senghor ko président bu fi jaar rek am nga say fenkat président bu fi jaar rek am nga ñoo xamante ne dañoo taxaw rek pour di la fenan rek naan la Sénégal lépp gongo lépp baax na alal ji ñu jox wala wala wala lépp li nga wala financement yi nga xamante ne ñi ñu ngi koy def ci jeunes yi lépp mu ngi jaar yoon di di ko fen rek mu yëngal bopp naan waaw di bàkku rek lii war na laa yee lii war na laa yee lii war na nga ci jëlee tiire ay leçons ñun danoo foogoon ni bi nga jógee keroog da ngay tas gouvernement bi tasar waaye nga ñëw wan ñun ñu da ngaa gën a nekk marionnette da nga gën a nekk nit koo xam ne dañ lay jiital da nga nekk nit koo xamante ne dañ lay dañ dañ lay topp dangay toppaat da ngay topp nit ay ay intérêt jàmbur pour rey sa intérêt réew neexul dégg. mais loolu moo am neexul dégg mais loolu moo am ñi koy défendre toujours dañuy wax naan naka la nit di bàyyi ay intérêt am di topp intérêt jàmbur loolu gis nañ ko fi bataay du fi gan du fi gan waaye rek waay fii nga bëgg a jëmee Sénégal ñoo lay ñaan li laay war a suul yi téewal sa ñi nga xamante ne nii gëmuñu lu dul sa poos ak poosu senegal ñu bàyyi fen yi ñu bàyyi jaxase bi ñu bañ ñu jaxase suñu wàllum xeet tubaab bi jëm nañ ko ci wàllu diine yàggul dara jëm nañu jaxase entre catholique et musulman ñu gis dialogue islamo-chrétien bi am fii nii neexu leen ñu bëggoon ko tas réussiruñ ko tey ñu jaaraat ci yow tey ñu jaaraat ci yow pour am li nga xamante ni mooy tasaara Sénégal dëgg pour tubaab yi mën a wàcc tey ci terrain bi mën a indi seen ay france yi mën a indi seen tey ay armes de combat wàcce seen ay militaires pour entourer jox leen sécurité def sécuriser leen pour mën a faagaagal askan bi pendant ce temps pendant ce pétrole bi ak gaz bi nga xamante ne mi ngi nekk ci réew mi ñu xool noonu ko sàccee rawale ko boobaa ay bakkan dina tëdd boobaa ñun ñii di wax ñëpp tey dootoo leen dégg ñuy wax ndax bu jàll bu jàllee da ngeen ñuy rest in loolu bu jàllee ñun ñu ci bëri dañuy dee boobaa ñoom ñu dem dëkk ci yeneen réew ne Sénégal dafa amoon guerre c'est triste c'est triste sama gars yi c'est triste quoi lii dafa nekk dafa metti parce que ñu fi leen jëmee Sénégal quoi gumba sax bay tey silmaxa boo jox boo joxul yat sax mu expliquer la fii ñuy jëm jëm ak réew mi c'est triste loolu foofu rek la ñuy woo te bu ñu leen wuyu mukk ci foofu provocation yi ñuy gis chaque jour provocation yi ñu gis chaque jour du lenn lu dul créer benn groupe boo xamante ne nii dañ ci dañuy njëkk a jàpp benn vague vague boobu ñuy jàpp ñooy premier terroriste yi ginnaaw ñoom li ñu bëgg bu antoo ba pare. comme jëm nañ teg loxo Ousmane Tounkara boole ko ci ñi nga xamante ni dañuy financer terroriste yu nekk Sénégal ñoom loolu ci loolu lañ ko classé ba pare ginnaaw loolu ñoom ñi ngi ñi ngi fexe boo ñu ngi fexee boole li nga xamante ni mooy seeni doole. pour armée Sénégal armée française bi mun leen a protéger pendant ce temps armée sénégalaise bi ak armée française bi génn commencé dal ci kaw askan bi commencé faagagal askan bi lii mooy waaj am Sénégal lii la ñu bëgg ci Sénégal ñoom ñoom lii lañu ñu bëgg. pendant ce temps ressource bi ñu doon naan mën na suqali Sénégal fii ñaar fukki at ci kanam wala fii ak 40 yoo xamante ni ñun duñ ko fekkee suñu ay doom yéen ñii di seetaan sax mën ngeen ko bañ a fekkee ñoo ko waroon a jëriñoo duñ ko jëriñoo kon tey li dal Libi tey moo leen li dal Libi tey moo nar a dal tey suñu Sénégal li to li dal Mali tey moo naroon dal tey Sénégal te ñu ngi ko jaarale ci jeexantalu nguuru Macky sàll boo xamante ne nii wallaahi jarul woon sax benn bëy di ci daanu wallaahi laxasim jarul woon benn bëy di ci daanu ndax lii dafa wane lépp. ñii lii ñu def dafa wane lépp seeni ay plan dafa wane lépp ne lii ñoom lii lañu bëgg ci senegal waaye rekk ñun duñu ko seetaan rekk ñun ñu dugg ci kaso bi dee ci génne secret yépp yi ngeen xamante ni yéen moom ngeen nar pour daaneel Sénégal pour ñu tëj ñu ci kaso yi sunu giiru dund senegal mucc ñun bëgg nañu bëgg nañu ñu tëj ñu suñu giiru dund suñu giiru dund ci kaso yi ngir Sénégal mucc senegal mucc nga xamante ni sénégalais ku kenn sénégalais bu nekk di nga jël say matuwaay sénégalais sénégalais bu nekk bañ a bàyyeeku bañ bu leen bu leen ànd ak Macky sàll ngir yàlla parce que àndul ak Sénégal àndul ak senegal nit ki da ngay ànd ak moom ci bu ànd ak Sénégal nit ki da koy bëgg ngir bu bëggee sa réew ngir nit ki da koy topp ngir bu bëggee sa réew nit ki da koy gëm ngir bu bëggee sa réew waaye rek nit nit nit doo ko mus a topp ngir dafa bëgg a tas senegal dafa bëgg dafa bëgg a jaxase sénégalais yi ci wàllum xeet recruter ay bindkat ñu jaay ko seen xalima ay million recruter ay waxkat ñu jaay seen làmmiñ ay millions recruter ay fenkat ñu jaay ko seen jëmm seen ruu seen xol seen ay millions ngir avenir u Sénégal bu nër bu jëm suuf ngir Sénégal bu dul baax ngir senegal bu dul jariñoo ay ressources am ngir Sénégal bu dul jariñoo ay borom xam-xamam ngir Sénégal bu dul jariñoo ay kilifaam ngir Sénégal bu dul jariñoo njàngalem njàngum njàngalem bi nekk ci daara ñu suufe yi wala ji ci kaw yi. abonnez sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.